loterie national sénégalaise soob loxoom ci xeex bi jëm ci jëlee fi coronavirus ay produits yiy sàmm cet gi seeni njëg toll ci fanweeru million la fondation LONASE jébbal jëwriñ du ñu dénk wàllu wér yaram gi. problème bi c'est c'est un problème sérieux boo xam ne ñëpp ci war a bàyyi xel en dehors des dispositions yu ñu war a jël ci cet gi ak ci comportement attitude yu ñu war a am ci suñu comportement de tous les jours il faut que nit ñi mën a contribuer du société yi du société yi rek tous les Sénégalais doivent contribuer képp ku mën dara. parce que ñun ñëpp ñoo problème bi ñun la c'est pas un problème de l'État État rek moo war a def ñëpp ci war a jàpp. particulier yi société yi ñëpp alors LONASE également moo tax ñu indi tey suñu contribution génn produit yi lu ñu xeeb la pour le moment c'est un début 30 millions la à peu près c'est des produits yoo xam ne ministère bi dina ko dina ko soxla pour jëfandikoo pour euh, aar nit ñi pour euh, préserver pour jël déjà les devants pour que maladie bi bañ am fu mu fépp fu mu am tamit ministère am moyen ñu tax mu koy mën a mu leen di mën a dëkku mën a. doxalinu fondation gi nag. jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gi-yaram rafetlu ko bu baax ci jamono ji nga xam ne réew mi soxla na ko lool. maa ngi euh, gërëm bu baax directeur généralu LONASE li mu def tey rafet na ci turu président Macky Sall ci turu gouvernement bi maa ngi ko ci euh, gërëm bu baax di wax ne LONASE moom euh, cërëm mooy toujours nekk ci booru population yi jàppale leen bon nag bu defee lii du loo xamante ne dañ naan gulet donc déjà ñu ngi lay remercier bu baax. di wax ne xeex bi nag euh, du xeex bu yomb parce que booy xeex ak ennemi boo xamante ne gisuloo ko li gën a am solo ci xeex bi mooy ñëpp bokk nekk benn te nekk benn boobu am na ci acteur boo xamante ne acteur bu essentiel la mooy euh, ñi xamante ne ñoom ñooy tas xabaar yi xabaar yi ñoo yegg ba ci population yi di formater seen comportement bon dëkk ñu ngi kontaan seen taxawaay di leen lancé effectivement message boobu parce que xeex bi ñaar la. am na xeex boo xamante ne da ngay bañ mu jóge bitim réew ñëw am na xeex boo xam ne dangay bañ mu law si biir réew bi ñaari xeex yooyu yëpp nag la ñuy bokk ak yéen pour jéem ko gañe directeur général loterie nationale sénégalaise jiite itam fondation LONASE ne pare na ngir gën a yokk loxoom bu ko xeex bi laaj yi oui oui absolument mooy li ma doon wax sànq ci ci tubaab ñun actuellement soldat lañu waxuma loolaange rek ñëpp war a doon soldat actuellement ñun soldat lañu fépp combat bi laaj rek dinañ ko def xanaa ñu ñàkk ko am mais lépp lu ñu am te euh, mbir mi laaj ko dinañ ci def incha allah. Sénégal weesu fanweeri kaawu contamination coronavirus njiitu réew mi soñu ñépp ñu wàll si ci xeex bi loterie nationale sénégalaise.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 en temps réel.